cheikh yi nekk ci ndox mi l'observateur ne muy docteur Cheikh Dieng ak docteur Cheikh Tidiane Dieye journal Futurs Médias bi ne Cheikh Dieng moom la ñu tabboon ci bopp ONAS di office national de l'assainissement ñetti weer rek la fa def ñu tekki ndombal tànkam yéenekaay bi ne moo taxit Cheikh Dieng déballage dëgg la def ni ki démb ci l'observateur mu naan fa tey laa leen di wax la ma jëlee ca ONAS Cheikh Dieng ne lépp ministre Cheikh Tidiane Dieye la mafia bu réy la nekkee ca bopp ONAS ñaari entreprise la fa yabaloon bëgg ko ko forcé muy Delta ak Vicas mu na lijjanti ndoxi poot yi ba noppi ci la ko ministre bi bindee bataaxal di ko a taafantaloo Touba ndax scandale bu rëy moo fa am ci wàllu ndox ma turbine ne ci gàttal daal Cheikh Dieng nee na Cheikh Tidiane Dièye moo ko dàqlu ndax bëggoon koo forcé lobby yi muy liggéeyal moom mu lànk Cheikh Dieng ne lobby yooyee Cheikh Tidiane Dièye di leen di joxe marché après ñu séddoo xaalis bi te li muy wax bu ilimaani jëri yi di Ousmane Sonko weddee na def audit ca ONAS bu boobaa yuuxu dina jib fun ko foogewul susu aane Cheikh Dieng labal na Cheikh Tidiane Dièye ci ndoxi poot yi ak dàqam ca bopp ONAS lépp ministre bi la ko jiiñ enquête yéen kaay ne règlement de compte dëgg moo am ci diggante ñaari cheikh yi Cheikh Dieng leeral na ba leeral coowul oto bi Les Échos ne ba noppi bécc ay preuve Walf Quotidien ne Cheikh Dieng nee na Cheikh Tidiane Dièye dafa lijjanti ay marché ci ndëngte bëgg ko ko xaatimloo mu lànk mu fexe bañ dàq ko waaye bés bu Ousmane Sonko defee audit ca ONAS loxo dar gémmiñ moom Ousmane Sonko démb joyante nan règlement intérieur ba journal L'As ne quatorzième législature ba ñoo fa jaar tribune ne premier ministre di Ousmane Sonko kay amatul lay lépp li mu waxoon ne moo ko teree dem ci assemblée nationale defi déclaration politique générale kaa yi joyante nañ ko niki démb Sud du Quotidien ba noppi ubbil ko bunti pencum ndawi réew ma di assemblée nationale fi mu toll moom Ousmane Sonko moo yore ca gulguyam ci moom la des Ayib Daffé bu groupe parlementaire loolee waa CDEPS weddi ko ba mu set ne loolee amul te mënta nekk lii quotidien CDEPS di kuréel gi ëmb patron presse yi nee nañ seen journée sans presse bi ñu doon amal keroog talaata na mu jàlle sax dafa weesu seen njortu biir réew ba biti réew yëg nañ ko waaye rafetlu nan jéego bi njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye def keroog conseil des wax ne ubbeeku na ngir dialogue CDEPS ne loolee rek la xaar ci nguur gi ngir xool ay saafara ministre